soppe yi ak wëllëre yi ñoo ngi leen di nuyu nuyub islaam te mooy jàmmi suñu boroom ak yërmande suñu boroom ak barke suñu boroom yàlla na wàcc ci ñun yàlla na wàcc ci jotaay bi yàlla na wàcc ci dëkk bi yàlla na topp seeni jéego yu ñëw yi ak yu dellu yi ba wàcc ci ëttub baanaan kon jàmmi suñ borom boobu ak yërmande jeek barke bi yal na topp seen jéego yi ñëw ak seen jéego yi dellu ba wàcc ci ëttub baanaan bu dugg ci kër gu nekk ci baanaan barke boobu bu duggee kër gu nekk ci baanaan képp ku yewoo ci kër ga yal na la barke boobu làmb nuyoo bi di nuyoog sëriñ bi kàddu yi di kàddug sëriñ bi ndax ndaw ndaw lu ne day cof tuuti ca dara yey ka ko yónni kon mu mel ni kàddu yi man maa koy wax waaye ci ndigal la tegu kon ñi ngi leen di jaajëfalaat bu baax di wax ne ñaan de nungu na ndax danoo waxoon yàlla nañ ko teewaat déwén mu mel ne jàkkaarloo gi nga xamante nii moom lañ fi defoon moom rek lañ defaat muy jàkkaarloo boo xamante nii rek bëti yërmande la ñuy xoolaante di beesalaat pas-pas yi mu mel ni kon loolu lii nit amut lu ko ëpp ci kaw suuf lii nit amul lu ko ëpp ci kaw suuf ay jullit yoo xam ne wenn saylan ñew ci seen kilifa ak mom ñu xol kilifa gi kilifa gi ne si jakarlo ak ñom lolou kum ci yaakar li lay doy du bari kon nak yaakar joju yàlla nañ ci yalla tëmbal ba njëg na tëmb nañ ci ñi ngi nuyu serigne bi bu baax di sante bu baax di ko bu baax di ñaanal yalla li ma xam ci moom moom ngeen xam ci moom kilifa goo xam ne lu dul islaam ak alxuraan ndigalu suñu boroom njàngalem yonent bi wëllëre mag ñi ak bokk ak taalibe yi gis-gis ñoru ko ak liggéey kon mu loolu mooy li ngeen xam ci moom mu mel ni nag kon seen jéego yi jéegoy leer la jéegoy dëggu la jéegoy wëllëre la yàlla na leen yàlla fay kon kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal di nuyu sëriñ Mori Seck bu baax di suñu doomu baay di suñu mbokk di suñu xarit ñu bokk liggéey bi mu mel ne moom la nekkal fii di ko liggéeyal mu mel ne ñun la nekkal baanaan di liggéey kon mom ñu koy jaajeufal bu baax ci délégation bi nga xamné ne na ci sëñ Mori ñu ngi lay jaajeufal bu baax di ni sëriñ Njaga muhtar, nga xamné ne sama rak la ma nga né tok ñu koy jaajeufal bu baax diko diko sante diko gëreum yaakar na né ne programme am xam ngeen ko ci liggéey li mag ñi bëgg rek la bëgg kon sëñ Njaga Muxtaar ñu ngi lay sante di la gëreum di nuyu sëriñ Sekk di doomu sëriñ di ko sant bu baax di ko gërëm ci ak dalam ak yaroom ak bëgg xam-xamam ak maam naka noonu loolu moo nekk ci sëriñ Baye alfa moom it ñu ngi koy sant bu baax di ko jaajëfal di ko gërëm ku bari worma la moom it di nuyu itam ma dikke ñu ngi lay jaajëfal bu baax di nuyu sëriñ Njaga Muxtaar mi nga xam ne moom la sëñ bi tuddee senjaga jagame momi moom it ñu koy nuyu bu baax di ko ba ci seigne Mor Faccaañe ñom ñom ñepp ba ci seigne ibrahim Khalifa ñëpp bàyyiwun kenn di nuyu talibi ci kër gi ñëpp bàyyiwun kenn di len sant di len gëreem ah di amati contenté ak mbekté nak bu baax seigne mar kaddu yi rafet na ànd naa wor te na ñu ngi la ci jaajeufal bu baaxa baax mu melni incha allahu am na point rek yoo xamante nii yu ñu war a waxtaane la ñu ñu ñu tënku ko rek ci fukki point te bi ci jëkk mooy muraatul ixwatul islaamiya nit ki ni mu war a sàmme mbokk gi nga xam ne yàlla moo ñu ko boole te muy mbokkuk islaam deuxième point bo xamne lu ñuy war a waxtaane la mooy attaawunu baynal muslimina alal birri wa taqwa ci dimbalante ci mbax ak ragal yàlla comme niko yàlla diglé troisième point atanaasahu baynal muslimina te yonante bi wax ci ne ad-dinu nasiha lillahi wa li rasulihi wa li ummatil muslimina xaama quatrième point mooy ijtinaabu atafarruqu wax wal ixtilaaf yi mooy tundiku mooy euh, ak wuute ci programme cinquième point mooy tarku suxriyatu wal istihsa ñu mooy xeebante ak saboote kenn ku ne saboote sa morom septième point الصحي لإصلاح بين المختلفين بالحدل والرأب صده بينهم dox ci luy luy yéwénal ñi nga xam ne danoo amug wuute nga dox ci luy yéwénal seen diggante huitième point الدعوة إلى الله بالحكمة والجدال والحوار بالتي هي أحسن nga woote te li ngay woote nga woo fexe ba rek teg ko ci rëddu xam-xam waaye teg ko ci maanaam fulla teg ko ci fulla waaye nga teg ko ci nga fexe ba teg ko ci ah moral neuvième point tarku sabbi wa tax ni te yàlla wax ci wala tasbu lazina yadduhuna min dunillahi fa yasbu llahu aduwa dixième point tarkul ixtidaali ala xurumaatil muslimi assalaasati te yonent bi bi duuni wacci xaqinte yonent bi wax ci kullu muslimin alal muslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa xirduhu de euh, léegi onzième point bi ñaan la te mooy yi nga ñaan goo xamante ni danga ko ñaanal ñi la jiitu woon waaye di nga ko ñaanal sa bopp ak ñi nga bokkal jamono تموي بأن يؤلف الله بين قلوب المسلمين ويسب عنهم كل ما yasaba الحداوة kulla بينهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم waaw mu mel ni kon di di point yooyu li ñuy rek laaye biir ñu tënk ko jëkkanteeg waxtu wi rek donte benn baat la sax ñu mën ci rekk jàpp jariñu ci insha allah alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala xaatimi al anbiyaai wal wa ala alihi wa sahbihi ajmahina amma baadu fa inna al diin al islaam ji nga xam ne moom lañu nekk huwa diinun mabniyun ala asaasa ala asa sayni matinayni wa rukunayni asimayni diinal islaam dañ koo tabax ci ponk yu dëgër a dëgër ñaari ponk yu dëgër a dëgër mooy waxuma kalimatu tawhid te mooy baatu laa ilaha illallah muhammad rasulullah diinal islaam ci loolu lan ko mooy fondement bi moo tax soo ko nanguwut a wax ci islaam duñ la jàppee jullit soo nekkoon ci jeneen diine ñëw ci diinal islaam yaakaar naa ne bala ñu laa bala ñoo nungu ne jullit nga loolu di nga ko wax kon islaam looloo ko fondement laa ilaha illallah muhammad rasulullah yàlla amut beneen yàlla bu dul yàlla amut beneen buur bu buur lu may allahu sayyiduna muhammad ndaw la woon dib jaam ba yàlla yónni ko jox ko alxuraan mu mu jàngale lim jàngale ci diinal islaam qaala taxalaa moo tax yàlla ne inna haasihi ummatukum ummatan waahidatan wa ana rabbukum fa'buduuni xeet wii wenn xeet lan ñun ñëpp wenn xeet rek lan kon ana ngëneel fa ngëneel di amee rek mooy ku nungoo pratiquer laa ilaha illallah muhammad rasulullah ndax ndax loolu lay daal di yóbbu ci tedd ngay jikko te tedd ngay jikko jooju waxoon direct Seydina Muhammad ne ko ku gën nit ci loolu nga ko gëne jikko ju rafet yàlla nag bi mu ne yéen yéen xeetu Seydina Muhammad benn xeet ngeen lam ca teg nag mooy fullaam ju rëy ja wa ana rabbukum man maay seen boroom lam ca tegaat mooy fullaam ju réy ji fax bu duuni jaamu leen ma ku ma jaamu defaru àdduna ak alaaxira ku ma jaamu wut sa bopp wa yajibu alayna muxsaral muslimina kon nag mboolem jullit mi war na ci ñun an narja illa kitaabillahi ñu delluwaat ci téere yàlla bi jot na sëkk ñu delluwaat ci téere yàlla bi bi an yaxbudallaha téere yàlla bi moo ñuy jàngal ñu jaamu yàlla képp képp képp ko boole ak keneen boole yàlla ak keneen caaxaan la boole yàlla keneen ci jaamu ci weeru ko ci wóolu ko caaxaan la yàlla daal moom képp dong kon an narjiha ila kitaabillahi taala wa sunnati nabihil karim sallallahu wa sallam ñu fexe nag sunna si bi ñu koy pratiquer bu baax a baax a baax luñ ca man li nastarsida bihima fi kulli xaadisatin gis nga buñ toppee njàngam yàlla nga yonent bi ñuy jamono ji buñ toppee sunna dinañ ci mucc ku toppul sunna nag diñ ci bi kenn ku ne xam nga ne jamono am nay xew-xew xew-xew yooyu topp na rek moo la ci mën a muccal lu dul nga topp njàngalem yàlla ak na yonent bi sa tànk ma nga ne carax ci biir xam ngeen xew-xew yi jamono ko ci sa tànk dugg ab teen la dangay ngay yol di dem rek balab aw naasilatin tuhaddidu sawaabita asarxiyata wa sulmina al ijtimaahi xeexoo am na yu ciy wàcc ci sariya waaye teg ñun dinañu musal kon ni xam ne yoone bi nga xam ne moom la ñuy moom moom dund sariya bi nga xam ne dina ci ci xew xew jamono ak li nga xam ne mooy wàcc te muy nuru ay musiba ay jafe-jafe moo tax alxuraan yàlla ne wa isaa jaahum wa isaa jaahum amrun min al amri te fekk yéen ngeen nekk ci sécurité ci aw wala sax tiitaangeeg ragal ak avec la ca topp ñu tëggut seen tànk ci sunna a nekki saay-saay dañ ciy profitoo asaaxu bi yii gaaw tasaare ko bu dee ñi nekk ci sécurité la ñu fexe noonu xajamale seen sécurité ñu nekk ci jàmm ñu fexe noonu xajamale jàmm googu bu dee nag ñi nga xamante ni tiitaange lan àndal ak ak jafe ñu ne gaa yi duñ tekki dara ndax fi mu nii kenn talatut sa bopp kon ñoom saay-saay yi ñoom duñ tàyyi duñ xef du nelaw toujours rek ñi ngi teg jullit yi bët fu ñu leen mën a aw nag dinañ leen fa aw ci suuf ci kaw ci diggante fu ñu leen mën a aw dinañ leen fa aw bu nekkee ci seen jàmm ñu seet nu leen yëngale ci seen jàmm jooju ba nekk ci fitna su nekkee ci fitna ak ragal ñu fexe bu fitna jooju gën a tegu ci seen kaw gaa daw rek xel wudut am àpp nag ah bu feree ni wut fa mu jëmee boroom du baax kon nag fereen yi mooy ñu delluwaat ci yàlla ak njàngalem yonente bi ndax saay-saay si ñu ngi taxaw lu tuuti ñu tasaare ko mu yaatu lool kon nag asaaxoo bihi walaw rudduhu ila rasul ila ulil amri minhum la allimuhu stambituunu minhu walaw laa fadlullahi aleykum wa rahmatuhu la tabaxtumu seytaanu illa xalila kon nag léegi ñun lan lan lan mooy suñ ful la ñu dellu ci njàngaleem suñu boroom dellu ci suñ na yonant bi dellu ci kilifa yi comme nii ngeen wa ila ulil am fàttiwut kilifa dane ci man dem dellu leen ci yonent bi dellu leen ci kilifa yi ah comme ful la ngeen boo nee bu fekkee boo nee bëre doo mën a jox yàlla loxo boo berido bëri doo gis yonent bi way di nga gisum njàngale way boo nee bëri dox yi jéego gis kilifa gu bax go xamne ma nga tek tank Wale la yalla wax alquran la de delu len ci yalla wala ci yonent bi wala ci comme ni ngeen def ah, kilifa yoyu ñewé mu xamal len xam-xam mu xamal leen xam-xam mu ne nag walla laa fadlullaahi aleykum wa rahmatu ay bu dul woon nga ne lu yàlla ci yéen ak yërmandeem la tabaxtuma seytaana illaa xale ñëpp njabootu seytaana lay doon ba mu des ñu lu yàlla yërmande ko yaatu ndax seytaane li bari bari doole jommi na ndax la ilaha illallah muhammad rasul xooleen sikarkat yi fii baat bi ndoon tudd zikrullaahi akbar lu du tudd yàlla tudd yàllaa la man mooy li sikk di doon wax moo tax seytaane day jommi rek ndax tuur yàlla dara da koo attanut ñu gën a góorgóorlu bu baax rek xam na ñu ngi ci dara sikurun li ummatil muxawimaati li sulmil ijtimaahi fil islaam war na ni taxaw temm nag ci liy dugg ci li nga xamante ni mooy jàmm ji nga xam ne mooy dëgëral dundin wi ci dëkk bi mooy dëgëral islaam ñu taxaw ca temm bu dee tudd la wax ñu wax ko bu dee jëf la ñu te ci ful walilaa walillaahi waliyu tawfiix wa sadaat yàlla nag mooy jubal mbir te moo yor njub moo yor tawfiix te mooy jubal mbir Murahatul ikhwatul islamiya ñu sam mbokk gi mbokk gi ñu yalla boole ñu gën ko sam ci la ngañay ne ci la perte mané qala taala yalla neena na ci alquran innamal mu'minuna ikhwa julit yep ñi gëm yalla ñep ay mbokk lan ak ak yor yéen ñëpp ay mbokk ngeen ah waaw ndax mbokk moom dañ koy dundale sama mbokk la sama mbokk la rek mbokk am na nun koy dundale te mooy lan li wax aslihu bayna axwaykum li koy yéwénal di ko naatal cofeel gi mbëggeel gi di yokk nan ca taxaw laaxa ñu ragal yàlla ci mbokk gi ñu ragal yàlla ci mbokk gi laxal la laxalakum turxamoona buñ ko defee ngërëm ñu fokk ñu am ngërëmul suñu boroom kon mbokk alalu yàlla la point boobu da ciy dugg ñii ñu def ba ba mën a am doole jii ah na yokk rek am doole gën di yokku mbokk gi gën di am doole taawunu baynal muslimina alal birri wa taqawa mbokk tam boo ko rafetee boo ko rafetalee ba pare danga koy couleur dimbalante mbokk boo fexee ba mu rafet li koy couleur di ko suuxan mooy dimbalante def ko ci mbaax waaye sedd ci yàlla moo tax yàlla ji wax nañu ko ci alquran wa taawanu dee leen dimbalante alal birri ci mbaax wa taqawa ak ragal yàlla wala taawanu bu leen di dimbalaate alal ismi luy indi bakkaar luy indi merum yàlla ak luy indi nooneel ci seen biir ak luy indi nooneelu yàlla luy indi merum yàlla ci seen biir atanaasahu baynal muslimina biir ci biir mbokk gi di biir ci biir mbokk gi mag ñi def daan biir te dara teg ko xam waxuñu nga réglé ak mbokk boo pare toogee ci toog ci penc ma bu duggoon ak man dara du sotti maa leen defaree ëllëg dara am nga ne xanaa ba ma koy defal ndàng wala ba su ma xam na loolu du ma ko def xanaa yàlla ngay liggéey bu fekkee yàlla dong tax ngay liggéey ba nga ko defee fàtte ko yàlla lay fay loolay liggéey waaye liggéey àndul ak wax def ba pare na maa def. ah déedéet xaala xaala sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonent bi nee na addiinu an nasiha diine laaye biir la li wali rasulihi ak ci yonent bi wali ummatil muslima ama ak mboolem xeeti jullit yi laaye biir rek defar rek defar rek yàlla defar la bëgg ijtinaabu at tafarroxu wal ixtilaaf ñu moytandiku tam xàjjalikoo ñu moytandiku xàjjali ko ak wuute moo tax yàlla wax ci alxuraan ne wa ati xaala taala wa atixollaaha topp leen yàlla wa rasuluhu ak yenant bi wala tanasaxu te bu leen di xëccoo bu leen di xëccoo xëccoo moom sottalu dara xëccoo xam nga lum leen di indil fa tafsalu échec day am échec day am xam nga beneen leneen lu mu leen di indilaat wa tasxaba riixukum seen doole dem seen fo moo tax yàlla ne wasbiru inna allaha maa saabiriina mbokk gi lu ci mitti muñ leen ko te yàlla tax mbokk gi lu ci mitti muñ leen ko ci yàlla tax yàlla kum liggéey loo rek dina la sonal waaye kum sonalit dina la fay lii de tarku suxriyatu istihsa wa tanaabusu ñu bàyyi xeebante ak lu dal nit nga taxaw di ko ree lu nit nga taxaw di lu nit ñàkk nga taxaw di ko ree ñu moytu di ko lu nit am doonte am na valeur nga koy saboote ñu moytu ndiku loolu loolu soti du tax société bi am doole loolu du tax mbokk gi am doole nit lu mu am yéene ko ko nit nu mu mel bu ko ree yàllaay tege te yàlla du juum ñu gën a bàyyi loolu xel ak it di indi tur yu kenn xamut di ko tuddee nit sant yu kenn xamut di ko di ko di ko santale nit ah te yoo te muy ay turi kàccoor yooyu nan koy moytundiku loolu bari di tudde ay nit yoo xam ne du bokkul ak tur ba déwoom qaala taala ya yàlla wax ci alxuraan ya ayyuhal lazina amanu yéen gaa yi gëm yàlla ak yeneen bi laa yasxar bu mu xeeb bu mu reetaan xawmun min xawmi nit ci aw nit xasaa ndax kat an yakunu xayran minhum kat moo la ëpp jër fuuf ca yàlla كنغي خيب مولا أبو يكير فوف جاي الله مونة جيجين نيتام ولا نساء دمين نساء ناسا جيجين نيتام جيجين بوم خيب مورو موم جيجينم بوم ريتان مورو موم جيجينم ندخ كنغي ري ديكو خيب أمانا مولا جن جاي الله حسا أن يكون خيرا من هنا ولا تلمسوا أنفسكم بلين أيبل سن بوب أيبل نيت موي أيبل سن بوب wala tanabasu bil alqabi manam bu len di wuti dakantal ndax bisal ismu yoyu tur dafa bon te turi kàccoor lo bu len ko def ganau iman ba ngeen gannaaw ba ngeen taxawé ne gem nan yalla wa man lam yatub ku ulaykum zalimun neena lolou kep ku koy def rek kat nga te tooñkat la ko yaare yalla xare mom xamnako asahyu li islaahi baynal muxtalifiina defar ñaar ñoo xam ne nii danoo juumoo wuute ci mbir asaxyu li islaahi baynal muxtalifiina bil adli wuute defar ci ñoo xam ne danoo wuute ci mbir waaye booy defar nag ci maandu bari na ñuy defar defarun ci maandu la ñuy wax kii ak la wax kee du bokk mën na noo ñëw wax kii ne ko bul ñàkk ful la moom ëpp la ful la ah? lu muy def bum la ci jiitu demaat ne ko lam wax kee mu wax ko ko ah amal ful la bum la ko dàq te ne day defar taal na fee taal fee wa rabi saddaha baynahum li baax ci yewenal mooy nga réparer la yàqu dindi ko teg fële moo tax yàlla ne wa in taifataani min al muminina uxtatu min al muminina naqtatulu fa aslihu baynahuma ñaari kuréel bu ñu bu ñu juumoo bay tojantay bopp yéwénal seen diggante ñëwal nga dox tànki jàmm fa in baqat ihdahuma ala al uxra bu fekkee ne nag kenn ku nungu na kenn ku nungu na juboo dox ci jàmm waaye keneen ki moom nga yëkkati mbagg mbagg bañ kooku nañ jëflanteeg moom fa xaatilu lati tabaxi ka beew nañ jëflanteeg moom lu laaj nañ ko jëf nañ jëflanteeg moom xataa tafi a ba nga ba mu nangoo dëpp nangoo indi jàmm kon islaam gis nga foofu fit la fi wone ak jom ak fulla ki tooñ buñ ko ragal kin tooñ nan ko won yaa tooñ ki nga xam ne moo ñëw ci dëgg nañ ko jàppale ndax loolu mooy tax ki tooñ ragal waaye ki tooñ buñ ko dee jox dëgg tooñ day gën di law ku am dëgg bu amu ku am dëgg buñ ko joxul dëgg mu am ndam ki tooñ di am ndam day tax tooñ lew nit ñi am fitu tooñ moo tax yàlla ne ki tooñ nañuy jëflanteeg moom di wax dëgg yaa tooñ bu ko defee loolu mooy tax ki tooñ walbatiku fe in faa at nag bu fekkee nungu naa nag wëlbatiku tooñ ngam ne woon xam na ko nungoo wëlbatiku fa aslihu baynahuma bil xadli nag nga boolewaat leen nag ci maandu defar seen diggante wa axasitu waaye booy defar seen diggante nag yow mi koy defar toujours jiitalal maandu inna allaha yuhibbul muxsitina ndax yàlla dafa bëgg maandu te santaane ko إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أقويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون كون نيب أي مبوك لا ناني يوينال تا راغال يالا مبوك غي بون كو ديفه دي يالا النساء الى الله ورسوله والى اولي الامر ني د خاتيو ني ديلو خاتيو خاتيو اي مبير خاتيو تول خاتيو كير خاتيو علال moo xew de xëccoo tool xëccoo kër xëccoo alal xëccoo nag bu amee nan delluwaat rek ci yàlla moo tax yàlla ne yaa ayyuha allazina amano yéen gaa yi gëm atixollaaha topp leen yàlla wa atixa rasula topp leen yonent bi wa ulil amri minkum ak kilifa yi maanaam moo tax kilifa kenn du ko jéggi fa in tanaasaxtum fi say in bu ngeen wuutee ci dara rek bu ngeen wuutee ci dara fa rudduuhu la ngeen wuute fa rudduuhu delloo leen ko illallaahi ci yàlla gis nga bu ngeen wuute bu amee ñu dellu si ci yàlla rek lépp day sedd njàngalem yàlla buñ ci tegoo dara ju ñu jaaxal sunna buñ ci tegee dara du ñu jaaxal waaye itam buñ fajal sun bopp nan dem ci kilifa yi ah dara bu amee de ñu ànd ñëw ci sëñ bi yaakaar naa ne dellu bu dee am jàmmay am moo tax toujours rek yàlla tegal nañu fi ñu war a aw faradduhu ilallaahi wa rasul in kuntum tuminuuna billaahi wal yawmil aaxir bu fekkee ne nag gëm nañ yàlla waaye gëm ne ëllëg bis penc dina ñëw fa saalika xayrun wa ahsanu taawil leen lii daal moo moo gën te moo yoon wi nga xam ne moo gën a rafet الدعوة إلى الله بالحكمة والجدال والحوار بالتي هي أحسن ñuy woote nag ci yàlla te woote gi nañ koy teg ci xam-xam wax loo xamut fitna lay indi wax loo xamut fitna lay indi wax loo xamut du indi luy defar nañuy woote ci yàlla te di ko teg ci xam-xam wal ji daali ak fulla ak fulla ñaare ki nga bëgg a yee wala ki nga bëgg mu defar man ngaa wax mu wax waaye bul tàyyi waxal rek waaye wax ja da koy teg ci fulla nag wal xiwaare ak waxtaan ndànk ci yoon wi gën a rafet nag ñu defee ko ko suñ ko defee rek am résultat ci lépp moo tax yàlla ne ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawxisatil xasanati nani woote ci xam-xam ak waaraate wala waxtaan boo xam ne bu rafet la wa jaadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa ahlamu bi man dalla an sabilihi wa huwa ahlamu bil muhtadin yàlla xam na ki wàcc yoon xam na ki dëng waaye xam ne ki tam ki gindeeku ki nungoo tegu ci yoon kon toujours rek kenn ku ne na nga xool sa bopp ci fan nga ci ne nit mën naa defar boppam nit mën naa waxtaan ak njegenaayam ndax kenn ku ne xam nga li jaadu xam nga li baax ko nit man na jubal bopom ndax am nam xel tarku sabbi wa tahni ñu bayyi nak nit ñu bayyi ŋàññi nit motax yalla ne wala tasubul lazina yad'una min dunillahi bu len ŋàññi ñi nga xamanteni dañi wote leneen luddul yalla bu len len ŋàññi ndax bu len len xam nga luñ cey top luñ cey tegam fa yasibullah hadwan ñu jël yalla def ko non di ngañ yalla di wax ci yalla lu leen neexut ku bañ ñu ku bañ ñu ŋàññi sa kilifa bul ngañ kilifa ak jambur lool la yalla jangalé ku bañ ñu sa kilifa bul ngañ kilifa ak jambur lool la lool la bëgg jangal té ñom buñ koy def bi khayri ilmin dañ koy def ci luddut xam-xam fam gëna ñaawé la ni aw fa mu gën a ñaawe la ñuy aw kenn ku na xam nga ne sos yomb na ci jamono léegi sos rek xaw ma lu jafe waaye du loolu kasaalika sayyanaa li kulli ummatin amaluhum summa ila rabbihim marjiuhum fa yunabbiuhum bima kaanu yamaluun kenn yàlla na kenn ku na la nga ne dala koy taaralal yow ma ca ne nga defe ne lii mooy dëgg boo nekkee ci dëgg nag alhamdulilah waaye léeg-léeg nit nekk ci lu dul dëgg ñu taaralal ko ko ba mu defee ne moom moo ci ne te fekk ne wut ci dara. waaye fa yu nabbihum bi maa kaanu yaxmaluuna yàlla de kenn ku kenn ku nekk ci ci yéen kenn ku nekk ci ñun yàlla dina la xamal insha allahu la nga nekkee woon nan nga ko nekkee. tarkul ixtidaali ala xurumaatil muslimi asalaasa ñu bàyyi nag sàngi war may ñu bàyyi jalgati ñu bàyyi jalgati ak teggi war may moo tax yàlla euh, euh, ki euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko nee na kullu muslimin alal muslimi araamun dammuhu wa maaluhu wa xirduhu jullit bu nekk araam na ci yow Aram na ci bépp julit nga tuur deretu nit léegi nak gaay yi dépasser tour tuur deret ray rey la ñuy def léegi ray la ñuy def yonent bi nee aram na ci nit nit tur deretu nit aram na ci nit nit jël alal nit wala mu yak alalu nit wala mu togn ko ci alalam aram na ci julit mu yak deru moroomu jullitam addaxwatu bi an yu allifa allahu bayna qulubil muslimin ah ñaa ñaan ñaan gi ñaan ko ñaanal leen ko wa yasa wa yashaba anhu kulla ma yujibu ahda yàlla nañu yàlla musal ci lépp luy indi nooneel wal bax baynum ak lépp loo xam ne day indi mer ak mbañeel ci suñ diggante wala si na jaawu min baxdihim yaquluuna rabbana axfir lana wa li ixwanina allazina sabaxuna bil iman wala tajal fi qulubina xillan lillazina amanu rabbana innaka raufu rahim mbokki jullit yi kon ñu tënkul foofu wax ji yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp yàlla na yàlla def ñu teewaat ko déwén te yàlla rafetal lépp lépp lu ñu jafe yàlla ñu ko yàlla yombalal mbaax ak sutura yàlla nañu ko yàlla yombalal ak defaru yàlla nañu ko yàlla yombalal jàmm yàlla nañu ko yàlla yombalal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 ba aljana Samsu TV la ni bege ba aljana ay waay di ko bege waay ba aljana ana waa daara ji Samsu TV la ñuy bege ay ba aljana waa